أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk jullit yi góor ak jigéen mag ak ndaw ñoo ngi leen di nuyu yéen ñépp boole seen di leen ziyaara ànd ak di ñaan yàlla mu dolli ñu kàttan ba ñu matal weer wi ak suñu sago te mu nangul ñu ko ak mboole seen jullit ci mbaaxam ak yërmandeem sunu waxtaan tey jii mi ngi jëm ci fadlu sadaqa ngëneelu génne sarax diine lislaam dafa woote ci tabe tabe ci sa alal tabe googu nag tabaarakallaahu la koy lal moo di yërmande ñu bëgg si dimbali koo tane tabaarakallaahu mu di bunt yoo xamee ni it yàllaa ngi lay sàkkul yoonu gëm yàlla yoonu mbaax xam teraanga def teraanga ihsan ak rafetal lislaam teg ay mécanisme ay méthode yoo xamante ni képp ku ci jaar rek dafa gën a yëkkatiku rifaatu darajaat nga am cër ca yàlla yàlla ni ci alquran lan tanaalul birra xatta tunfiqu mimma tuxibbuun wa ma tunfiqu min cheyin fa inna allaha bihi alim sama borom nee na subhaanahu wa taala du ngeen egg ci daraja ragal yàlla daraja gëm yàlla daraja mbaax dëgg dëgg dëgg ndaree bu tee fabuleen la ngeen gën a bëgg mu sax seen xol ngeen nangu ko teg ci yoonu yàlla te lu ngeen ca génne nag lu bare mbaa lu néew yàlla yëg na ko yàlla xam na ko su sellee xam na ko su dee ngis sërit yàlla xam na ko yal nañu yàlla xiir ci rafetal xiir ñu ci dimbalante xiir ñu ci def lu baax ci yàlla rek tax borom bi wan nañu ci alquran ku génne sarax mi ngi mel ne ku def investissement ci wàllu zahir ci àdduna nga jël ca benn alal teg ci banque bi mbaa ci société jënd ay action alal jooju ren ba déwoon dana am lu mu la yokk ci koom ak gën bare wërsëg insha allahu borom bi ni ci alquran mathalu alladina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillah ka mathali xabbatin ambatat sabca sanaabil fi kulli sumbulatin miati xabba wallahu yudaacif liman yashaa wallahu waasicun alim sadaqa allahu alazim ne gaa yi nga xam ni ci misaal dañu nangu génne seen alal di ko teg ci yoonu yàlla ne ñoo ngi mel ne ku jël benn pepp dugub daldi sànni roose ba nga roose toog diir benn pepp boobu génn juróom ñaari gurubu dugub juróom ñaari gurubu dugub yooyu boo ci dajji fekk ci téeméeri pepp ak lu ko ëpp tabaarakallaahu yàlla moo koy furandi ndax yàlla moo xam lépp mooy borom wërsëg gu yaatu gi kon ci wàllu yàlla soo génnee sarax jox miskin jokke ka mbokk dimbali koo tane def ca daara ja def ca jàkka ja def ci lépp loo xamante ni wóor na la ni lii incha allah mi tegu ci yoonu yàlla ala kulli xaal sa dërëm boobule bul ko xeeb incha allah bala ren di déwén ki nga ko lebaloon mooy yàlla tabaraka wa taala dana ko dugalaat sa poos multiplier ko ni mu gën bare kon mbokk yi dañuy saraxe te sarax nag bu ñu ko teg rek ci ay charte charte am soxla am aajo am aajo liggéey am aajo sëy am aajo tukki am aajo examen wala bu mu doon ñu digal la sarax nga daal di génn sarax sarax dafa war a doon lu nekk sa xol nga di ko jaamoo yàlla aajowul am lu bare bare bare aajowul it am lu néew néew néew la nga am te yéene ko ala kulli xaal denn ngaa ko xamante ni insha allahu taala mën na si faj aajoom soo dee sarax it yan na sell borom bi nee na alladina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillahi gaa yi nga xamante ni dañu nangu génn seen alal ci yoonu yàlla te duñ ca teg benn baat baatu sàppandoo wala adan duñu la sàppandoo duñ sa teg baat bu ñaaw lahum ajrum inda rabbihim nee na yàlla moo leen di pay pay gan mooy bis pencement duñu tiit duñu jàq am na ñoo xam ni soo leen jegesee am si ñoom aajo danañ la ko fajal ba noppi jàppale jàmm jàpp nañu suñ la fajalee sa aajo ñoo la moom dañu laa liggéeyloo teg la loo àttanul ko dootul yàlla am na ñoo xam ne suñu amee suñu xamee sa aajo danañ la ko fajal wante bés taxaw si diggu penc mi sur konte woon man doo tabaski sur konte woon man doo ngénte sur konte woon man doo solu yére sur konte woon man dañ la génne sa kër kooku dootul yàlla kon sàppandoo googu tabaarakallahu ak jël la jàppale jàmm mu tax yàlla di wax ni gaa yi nga xamante ni su defee si yoon yàlla ba noppi duñ sa teg baat bu ñaaw duñu la sàppandoo ñooñu am nañ cër ca yàlla bisu pencement duñu tiit duñu jàq wax ju rafet ak njéggal moo gën baatu sàppandoo alxuraan a ko wax su amee ku ñëw indi aajoom di la ko tiis mënuloo ko faj ñaanal ko yàlla ah yal na la yàlla suturaal soo ko fekkoon kat yaa ko moom yal na yàlla dalal sa xel fa nga jëm yal na yàlla ubbi la wërsëg yi yooyu baat neex na ci xol dal na xel te ñaan gi yàlla mën na ko nangu wante ni ràpp sa budd ñàkk kersa dàq nit ki gëdd ko toroxal ko te xamuloon ni mbokk yi yàlla moo moom jaam yi léeg-léeg nga def bàkkaar bu yàlla nar faj ci yow mu yebal la benn jaamam xam na ni xëy la mu lay laaj incha allah di nga ko am ngir sa sarax soosu ci moom yàlla faral la say bàkkaar xamuloo ko donc képp ku ñëw ci yow amal dal gu tollu na ko lii ka dal mënoon na dal yow mii nde moom la dal yàlla yebal la ko rafetal ak moom teeru ko teeru bu rafet wañ wan ko kanam gu leer ñaanal ko yàlla dalal xelam yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam inna sadaqata tutfi gadaba rabbi wa tadfa maytata suuy limaamu tirmidi moo ko solo radiallahu anhu ne yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ne sarax dafa fay meru yàlla ci yow daf lay fegal deegu ñaaw kon meru yàlla xamuloo ko mën nga bàkkaar tey ko mën nga bàkkaar doo ko tey yàlla yebal rek benn jaamu muy miskin mu fëgg la suba teel mbaa guddi nga ni daf may déranger fekk yàlla moo ko yebal fas yéene faral la sa bàkkaar boobu ala kulli xaal mu am fu mu jaar waa ji ñëw ñaan la mbaa mu leb la mbaa mu woyaan la mbaa mu yalwaan la la nga am jox ko la nga ci mën def ngir yàlla faral la sa bàkkaar boobu fegal la it deegu ñaaw yonent bi neen sallallahu alayhi wa sallam sarax julit dafa ñoddi ay fan daf laa fegal deewu ñaaw wa yuzhibu allahu biha al kibra wal faxra daf lay dàqal rëy ak doon puukarekat yàlla moomoom ruux yi mooy tarbiya ruux yi su xoolee jaamam bii ni kii ku rëy la du nangu dëgg kii kuy puukare la ci da dara jaam mbaa ci xam-xamam ak alalam daf lay xiirtal ci génn sarax soo dee génn sarax dafaa faj feebaru rëy tabaarakallahu dafaa fajit nga doon bañ doon puukarekat yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam pour wan la ngëneel bi nekk ci yàlla jox la wërsëg nga ciy génn sarax nee na saa yoo xëyee suba su la yàlla joxee ngay génn sarax ñaari malaakaay nga ànd ak yow di la inspecté ca xaalis ba nga amee ak alal ja nga amee ndax daa ci génne ñu naan yàlla sa jaam bii de kuy dimbali doomu aadama yi la sa jaam bii kuy saraxe la yàlla barkeelal wërsëgam yàlla yokkal wërsëgam malaaka yooyu gisuloo leen xamoo fu ñu féete ci yow ñoo ngi lay inspecté ñoo ngi joxe rapport yi heure bu nekk ne su la yàlla joxee wërsëg nga doon ku nay doo leble doo maye doo saraxe doo def yiw doo def benn mbaax malaaka yi naan yàlla sa jaam bii ku nay la du dimbali julit yi du leble du maye du saraxe yàlla sànkal alalam bis bu ne nga gis borom alal ju rëy xëy suba rek kenn xamul lu ko dal alal ji lakk defoon ko ci tiroir xëy suba taabal ja lakk mbaa ñu wane jaar jaarale gannaaw am lu xew sa kër ñu jël ko ko dem nga jommi parce que daawuloo génne asaka te yaa ngi ko amee daawuloo sarax julit yi malaaka yi di ñaan naan yàlla kii liñ ko jox nangu ko ndax moom mérité wu ko wal iyaazu billah sarax nag ay anwaa ay xeeti xeeti sarax yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ala kulli muslimin sadaqa képp kuy julit am nga loo génne sarax ñu ni ko yaa nabi allah fa man lam yajid ku amul lu mu téy lu mu génne sarax mu ni yaamal bi yadihi fa yanfau nafsuhu wa yatasaddaq ne ku amul lu mu génne sarax mi ngi lay xiirtal ci liggéey ne demal nga am liggéeyal sa loxo loo ca gañe mu jariñ la yow nga am ci pépp jor jël génn ci sarax ñu ni ko ku amul lu mu liggéey ci loxoom nag mu ni yuinu zal xaajati malhuuf daa fekk borom tiis borom njàqare bu sëngeem nga dimbali ko nga xettali ko nga leeral xelam daa am yoolu génne sarax ku nekk mu di jëkkër ak jabar baay ak yaay ak seen doom nit ak dëkkandoom yaag sa mbokk dena nga ko xamante ni mi ngay njàqare boo xamante ni nga dem ci moom ñaanal ko yàlla defal ko reeloo ko delloo ci xelam daa am yoolu génne sarax mu ni fa in lam yajid mu ni ko fal yaamal bil maaruf wal yumsik an ilchar fa innaha lahu sadaqa buxaari moo ko solo mu ni soo amul leen loo gisuloo ko nee nga wax lu baax nga jëf lu baax nga def benn acte de bienfaisance jógal seeti malade hôpital seetal mbokk mu sore tumranke nga dem nemeeku ko may ko loxo mu jóg te nga jàpp ci bañ a def lu bon bul jëw bul xaste bul toroxal gor ne yi soo ko defee daam yoolu génn sarax yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam man istataa minkum an yattaqiya annaar falyatasaddaq walaw bi shiqi tamratin faman lam yajid fa bi kalimatin tayiba lima muslim ko soloog ahmadu yonent bi nee na képp koo xamante ni mën nga fexe fegal sa bopp safara na nga ko def ci génne sarax sarax dafa fegal ñi dugg safara mu ni doonte ngëbu tàndarma la danku tàndarma ñett juróom nga bu tàndarma génne ko sarax yàlla fegal la safara soo ko amulee baat bu rafet baat bu neex mbokk yi nañu leen bokk yar suñu bopp ci wax yu rafet baat yu neex fi muy egg ci xoruñu kenn xamul nan la waxal nit lu ko neex yow jëkkër waxal sa soxna lu ko neex yow soxna si waxal sa jëkkër lu ko neex te bul ko nax waxal sa mbokk luy dundal xolam malade bi defal ko delloosi ko ki tumuranke wan ka yoon tegtal ko tapp tappal ko ba mu ree ba bég ki doon jooy fa mu rangooñam mi yiile muy société boo xamante ni jàmm daf cee am nit mën na bañ am xaalis mën na bañ am daraja wante mën na am jàmm jàmm kenn ku nekk war na ko mën may boppam may ka sa mbokk wax ju rafet wax ju neex kanam gu leer yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam yow mi amee tool nga amee sa tool bay ci ay fruits ak ay légumes benn waay romb dugg ci tool bi wala gis garab guy lang ci biti mu dagg ci mango ji mbaa sàppoti ji nee na yàlla may la génn sarax bu ko dóor bu ko toroxal waxuma nag sàcc waxuma ko dugg ci tool bi jël lépp déedéet am na lu doon lang rek nga daal di witti lekk bu ko wax dara bàyyi ko mu dem wala bàyyi may dugg ci am lu ñu jël waxuma waxuma gétt gu dugg yàq tool bi am lu ñu jaar jël ko fa bàyyi leen yàlla génneel la yoolu ko génne sarax yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam kullu maaruf sadaqa wa min almaaruf an talqa axaaka bi wajhin taliqin nee na jëf ju baax ju nekk wax ju rafet ju nekk daa am yoolu sarax te bekk na si jëf yu baax nga xool sa mbokk ak kanam gu leer kanam gu leer rek un visage radieux et souriant xam nga loolu neex na mais jël sa kanam fatt ko poose ko mel na ko jël masque am na ñu mel noonu ñun dañu ñuul ba pare ñuul ñaaw rek dafa doy ñuul ak ñaaw dafa doy bëgg ñuul bëgg ñaaw bëgg sévère fu ñu jëm du baax ñuul ñaaw sévère ñàkk xaalis ni lii fu mu jëm ci àdduna bi nee na kanam gu leer wan ka nit un visage radieux souriant nit ku ñome la sa soxna ñome la sa borom kër ñome la sa doom ñome la nee na loolu daa am yoolu ko génne sarax nee na bokk na ci sarax nga demoon ca robinet ba ca duyukaay ba ca teen ba gis ku duy ba noppi amul ku ko yenle nga ne ko kaay ma jàppale la nga yenu sa nga yenu sa sa sa sa ndab li daam yoolu génn sarax xam nga lislaam a ngoog entraide et solidarité jàppalante rek ma sha allahu taala ku yenu ba noppi mooy ca marché ba ku dugg ba noppi amul ku ko yenle nga ne kaay ma jàppale la nga teg sa bopp daa am yoolu ku génn sarax borom bi subhanahu wa taala nee na nañu sàmm sunu sarax bu ñu ko def ngistal na di yàllay kese na sell ya ayuha alladina amanu la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal ada kalladi yunfiqu maalahu riaa annas sadaqa allahu alazim yéen ñi gëm yàlla gëm yu mu santaane te gëm wéetaa yi bàmmeel moytu leen sànq seeni jëf yàq sa yoolu sarax ci lan teg ca baat baatu sàppandoo mbala baatu wane sa bopp nagaa yi ngistal kuy ngistal loo def lu nekk ala kulli xaal daa ci wane sa cër soo dee saraxe génne ko sa loxo ndeyjoor di ko nëbb ba sa càmmoñ xam ndeyjoor lu mu génne looloy sarax kenn du xam kenn du yëg seeral ko yàlla subhanahu wa taala yàlla moom jaajëfal la te yàlla ku mu jaajëfal fay la insha allahu yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam thalathatun لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم نينا نيت نغي جو خامتيني بس فنتما يالا دو واخ اك نيوم دو لين خول بتو يرمالي تي دو لين بال دا لين مبوغل مبوغل لو تر والعياذ بالله ابو ذر رضي الله عنه يا رسول الله خابوا وخسروا ньо ني نياك نانيو ньо ني بيرت نانيو ньо نيان لا يا رسول الله منك المسبل والمنان والمنفق سلعة بالحلف الكاذب رواه النسائي ومسلم وأبو داود منك نيت نيونيو كين كي موي كي سول مبو يو غود غود غود دي ديريكو ndax puukarewu am naa ko mën naa ko su tilimee ma sànni sol beneen kooku mooy kuy puukarewu ak kan almannaan ki nga xamante ni lu mu la defal sàppandoo la ko mbaa mu jàppale ko jaam mbaa mu la koy xoole mbaa mu siiwal ko maa ko defal nangam ni xanaa yëgu leen ko kooku tamit yàlla du ko xool ak kan ki nga xam ni daf lay jaay marchandise ba produit ci kaw waat ci lu dul dëggu jaay la lu périmé jaay la lu yàqu jaay la lu nëpp ba noppi di waat ci yàlla ba ci alquran ba nga jox ko njëg te la mu la jox daf lay gaañ ne ñi ñett yàlla mere na leen de yàlla na ump julit kon mbokk yu tedd yi ñoo ngi dénk suñu bopp te di leen dénku doon ñuy génne sarax te yàlla rek tax te tabarakallahu juboo ak suñu mbokk yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam bés boo xëyee baa nga gont ko taadilu bayna ithnayni sadaqatun fekkal ñaari nit seen diggante neexul jëkkër ak jabar baay ak doom yaay ak doom ñit ak dëkkandoom seen diggante xajam nee na nga see wax lu rafet di ka ca dox ba ñu ànd juboo daa am yoolu ku génn sarax nee sarax nag jox ko miskiin yi rafet na wante loo am di ko joxe jëkkër ko sa ay mbokk abu talxata radiallahu anhu ci biir saxaaba yi milliardaire la woon am alal amoon tool bu yéem àdduna bi saxaabi fa la naan dem di jël si fruit yi biyara ne lan tanaalu birra xatta tunfiqu ma tuxibbuun du ngeen ragal yàlla mukk ndaree ngeen jël li ngeen gën a bëgg def ko ci yoonu yàlla mu ñëw si yonte saa sallam ak jooy ni ko yaa rasulallah aaya bi daf ma daf ma yëngal ni ko sama tool bi ñëpp di yéem def naa ko fi sabilillahi mu ni ko nangul naa la ko wante séddale ko say mbokk kon nit lu muy defit bul jéggi say mbokk bul jéggi say jegeñaale tabarakallahu ngir nga am ci yiw nga am ci tuyaaba يانا نيو يالا خير تي بوبام اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين
ñoo ngi leen di yeesalaat julli naafila bi nga xam ni yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam képp koo xam ni guddi laylatul qadri julli na si ñaari raka raka bu ci nekk gannaaw alfaatixa nga jàng qul huwa allahu ahadun juróom-ñaari yoon boo sëlmalee wax astaghfirullah wa atuubu ilayhi juróom-ñaar fukki yoon yàlla maa ngi laa jéggalu maa ngi laa tuubal julli la goo xam ni képp ku ko julli fa nga toog yàlla subhaanahu wa taala dina la jéggal sa bàkkaar jéggal sa ñaari wayjur yebal malaaka sa aljanna mu tabaxal la fa kër bu ràññeeku malaaka di la rooseel garab yi te doo génn àdduna te teguloo sa bët ci boobu lay ngëneel yàlla bu mu ump jullit moo waral saxaaba yu tedd yeeg ulama saalixuuna yi di ko naafila ci guddi weeru koor gi yépp di ci yéene màggal laylatul qadri ñoo ngi leen koy dénkuwaat ànd ak di ñaan yàlla mu dolli ñu kàttan ba ñu matal weer wi ak suñu sago te mu nangul ñu ko ak mboole seen jullit ci mbaaxam ak yërmandeem subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu